suuf mooy li gën a mën a développer am réew kenn ku nekk ci ñun am masuliya nga ab responsabilité nga ci li yàlla teg ci sag dox ndax ki yàlla dénk ak njaboot njaboot googu l'islam moom la sant mu di ko dundal bu dee ki yàlla jox muy directeuru école way ndongo yooyu di jàng mooy masuliya bi yu amiru tullaabuhu taamir googu mën naa dem ci fexe ñoom orienté leen ba bu ku jóge ci biir école bi soo mënee am boo boo fa jógee mën a am ma mën a def alqaayit mooy njiit njiit nag moo xam président réew mi la moo xam chef de bi la moo xam député bi la moo xam maire bi la moo xam comme ci mën a doon xaayit nga ci la nga doon njiit nga ci doon ba ci sëriñ bi ak ay taalibeem xaayit la njiit la masuuliya ci digg masuuliya la ci diggante sëriñ bi ak taalibe bi ak donga yi ko yaakaar njiitum réew mi masuuliya la ci diggante moom ak population bi maire bi kasaalika masuuliya la ci diggante ak commune am ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ci biir commune bi ñoo ñu ñëpp kenn ku ci nekk war nañoo fexe am ay xalaat yuy dox ci biir ngir mécc suqali dëkk bi wala réew mi kenn ku ci nekk mën foo jàpp ngir dëkk bi dox bu dee réew mi war naa bàyyi xel liy doxal réew mi du rek toog ci bureau yi ñu kilimise leen dégg nga jël ci fu tiim bëy kayit yeeg bi yi di bind di xalaat di teg déedéet loolu dund taxul réew mi développé xalaat yooyu ñuy bind ci kayit yi mu jëm ci wàllu googu war nañ koy utiliser ngir nit ñi mën a xam fu mu jëm bokk na ci première liy tax réew mi développé mooy ñu fexe ba ndaw ñi am liggéey moo xam ay la lañ doon yu ñuy defar wala ay barab yoo xam ne kenn ku kenn ku ci nekk mën ngaa dem war faa mën a daan sa doone kon xaayit yooyu muy njiit yooyu bu dee sëriñu tarbiya bi wërta tarbiya xale bi rek ba bàyyi ko mu am ngërëm mu dem war na koo jàngalaale ci biir tarbiya gi mu ne ci daara ji di jàng bu jigee ci daara ji bu demee mën a am métier mu mën a liggéey ni nga xam ne moom na formation bu bees bii am ci wàllu école ne daaray soxna jaare bu sa jee def ca poroxaan nga xam ne kun jàngal rek nga mokkal alquran bind dana la jàngal métier boo di boo génnee ci daara ji mën a am métier moo liggéey loolu mooy développé am réew loolu bokk na ci loolu alxaayidu siyaasi bu dee ci njiiti yi ni xalaat dong di teg amul njariñ li muy jëlee li ñuy xalaat mënees na koy jëfee ngir nit ñi mën dem ca kanam. suñu xol sedd na suñu xel dal na daaw ak daaw jéeg nii la mas kon yàlla la yàlla gën a aar yàlla la yàlla gën a taxaw. le président Macky moo fi yónnee mais ci gàttal euh, bi ma joxee ndigal ma ñëw da kat bu leen def dara te ànd leen rek le maire de la commune de Mbacké ñu ñëw fii toog mu ànd ak l'appui au maire monsieur Morane ànd ak sëñ Maguette Diakhaté nee na Ndiaye benn délégation boo xam ne ci la bokk wacc caam ak aram sekk boo ko jiite Mamoun Ndiaye mi ngi fii Ablaye Diop ñëw na Baye Dame ñëw na aussi délégation président de la République Salim Moussa ñëw na Amadou Mbengue ñëw na Xaas Mbaye ñëw na mais Serigne Serigne Mbaye mbir mi ren dafa changé président dafa yónnee délégation maire ànd ci te république daa am li muy doxee kon dañuy bàyyi parce que lu mel nii maire moo war a ubbi. mais aussi maire dina wax président la république. ñu ngi leen di nuyu ku ne si turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sëñ Mountakha Bachir yàlla fi yàgg te wér yàlla kattanal ko ba yéene yim am jëm ci yoon wi ak ci réew mi yépp mu matale ko tañ fekk ko ñun ñëpp maa ngi nuyu sëñ Mamor Thioune. ak njaboot sëñ Mor ngi teew yëpp di beralu ak di beral ak nuyoo sëñ Mbay Mbenk nga xamante ne ñoo bokk li ñu bokk bokkit li ñuy yëngu mu am ci taxawaay bu mat sëkk am taxawaay ci yoon wi am taxawaay ci njaboot sëñ Mor Touré yëpp amit taxawaay ci Mbàkke maa ngi yëg samay kàddu sama turu bopp ak it turu délégation bi ñu lim sànq ñu ràññee ci ñu bari nga xamante ne ay conseil municipaux lañ wala ay adjoints au maire lañ ma lim ci rek le premier adjoint au maire doyen Morane ak ak Serigne Saliou Bousso ak Laye Diop ak Alaaji Diop tamit gis naa fi ak it délégation. madame mbay tamit mën naa si délégation bi ñoo bokk délégation bi ànd di ak doyen Maguette Diakhaté honorable député kaddu yi kaddu cant la dinaa ñëwaat léegi ci le ministre Isma Diouf kaddu yi cant la kàddu yi sàkku ñaan la ndax bis bi bisu xasida la bisu dellu si yàlla la bisu sargal mag ñu baax yi la bisu fësal seen liggéey jëm ci yoon wi ak seen taxawaay doon gunge xaadimu rasul sëñ Touba bis bi nag yàgg nañ koo teewee yàlla ko yàlla yàgg ñëw nañ fi ñëwin bu ne waaye tey dañ fi ñëw en tant que maire Mbacké kon nag buñ fi ñëwee ci tànk yooyu dañuy sant waa Mbàkke sant njaboot gépp ci kóolute gi nga xamante ne dañu ko wóolu ba dénk ñu dëkk bi akub diir ñuy ñaan yàlla ci barke bis bi yàlla jàppale ñu kattanal ñu ba yéene yi nga xamante ne am nañ ko ci Mbàkke yàlla jàppale ñu ba ñu matali ci lu bari lu ci bari di wax ne it maa ngi ànd ak Isma Dioum le ministre Isma Dioum di ko sant bu baax a baax ci rafetalam ndax it li mu def loolu mooy élégance tey it ci dañ loolu lañ loolu lañ ko xam muy nit ku baax ku am taxawaay bis bi jàpp naa ne mosu koo wuute bi ma fàttalikoo ba léegi di fi ñëw saabu ne dafay ñëw teew mu am responsabilité wala bañ koo am kon li muy mooy. teewu fi en tant que ministre kese waaye dafay teew en tant que doom ak soppe ak taalibe président de la république yabal ko ci sëñ Mbaye mbeng mii muy tànk yu ñu rafetlu ndax it dañoo xam bu baax a baax taxawaayam ci li ñu bokk gis engagement am gis it yéene gi mu am ci njaboot gi yëpp ak ci mbàkki kon nag dañuy sàkku ñi ñaanal président de la république ba mu mën a àggale yéeneem gépp gi am ci senegal waaye waaye tamit yéene gi mu am ci Mbàkke ndax bi yàlla defee ñu dénk ma Mbàkke togguma ñaari weer mu recevoir ma ma ñëw wax ko li nga xamante ne nii moom mooy bëgg-bëgg waa Mbàkke te yaatu na te xóot na waaye lépp li nga xamante ne wax naa ko ko te diis ko ko jël na engagement pour jàppale ñu ci ndax li ma ko wax mooy Mbàkke ku ne Mbàkke ne Touba dayob Mbàkke ci réew mi ñëpp xam nañ ko dayob département Mbàkke mën naa ne bu Pikine weesoo département Mbàkke moo ëpp solo ci wàllu population ak ci wàllu koom-koom rawatina it ñu ëmb jàppale dëkk bi gën ci réew mi mooy Touba kon it dafa laaj ab taxaw bu mat sëkk. naam ay jéego ñu ngi koy jëf jëm ci infrastructure yu bari ci wàll ci Touba waaye Mbàkke dama jàpp ne war nañ koo gën a geestu ndax it lu bare bare manqué na fi dëkk bi fi ñu ko fekk jàpp naa ne war nañu koo fekk fu gën a weesu fi ñu ko fekk loolu nag waxtaan naa ceeg président de république wax ko suñuy bëgg-bëgg wax ko suñuy yéene wax koy espoir ak espérance bi population yi am kon nag ñu ngi sàkku it ñu ñaanal ñu ba loolu mu am loolu mu am yéene def ci Mbàkke yëpp ñu bokk moom lépp antu incha allah. ak di ko ñaanal mooy Serigne Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ndax kenn ko na xam na digganteem ak kër gi kenn ko na xam na ni kër gi mel ci toolub Serigne Touba mu di ko fàttaliku bëri bis bu ne ba démb rek moo mu jiitu takkusaan yebal fi sëriñ Abibu mu ànd ak waa Touba ci kanam yëpp wax na wax jure rëy ji mu fi wax. sëriñ Modou Mahfous ñëw fi wax digganteem ak kër gi ak digganteem ak Soxna May ak taxawaay bi nga xamee ne waa kër Cheikh Mouhatou ñu ngi koy taxawu ci biir kër Soxna May. bu loolu jaalee sëriñ Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne mooy kilifa kër gi ndax bu naan fii sëriñ Mbacke Madina ko moom. ndax cuuneen dafa am ñaari pàcc bii ci lansaar da cee géeju ba jeex takk waaye nag dafa géeju ci mbàkke ba jeex takk kon nag cuuneen paak ñaari boor la ba ñett loolu moom suñ tuwaa ñu ko jagleel ndax boo nee sóori leen abadan soo gëstoo cuun danga ko gis ndax loo xamee nii Sëriñ Tubaa ci kàddoom walla ci kàddoom la wax ne diw saadex loolu yombul te wax na ko Cheikh Mor ñetti yoon te ñaar yëpp yi ma ci xam daanaka ci Cheikh Ibrahima saar la jóge ndax benn bi bi mu waxee Serigne Touba ba mu jaayanteeg moom ba noppi gis la nekk Serigne bi xam ne Serigne bi ëpp na Serigne ku ko jàpp Serigne dafa xamul mu ne ëpp nga ma Serigne damaa bëgg nga wut loo boole jaa doxale sama diggante yow may dem ci moom muy ñëw ci yow mu ne ko nan nga def ak Ibrahima Sarr Njaañ mu ne ko suñ buddu kër yee jëlloo mu ne ko boole naa ak moom mu ne boo ma gisatee moo moo ma la won nee na ba mu nee wëriñ dem sëñ waa dafa xool xol bi ak bu làmmiñ bi ak jëf ji nekk benn mun a sadiix Omar Thioune mu sadiix loolu mooy sadiix gu njëkk gi. loolu mooy nit ki li muy wax ci xolam dafa war a nekk ci xelam war nekk ci làmmiñam li wax ci làmmiñam dafa war ci xolam. beneen bii mooy aynu rahmati gii biñ ko sëriñ Tuubaa joxee Cheikh ma Sarr mu di ko liggéey lii may wax ñeme naa ko wax fii ma koy wax ci cuune laa koy waxee waa Lansara ngi toog waa Mbàkke ngi toog. waaye booy wax dëgg li ngay wax da nga koy ñeme ci toolu Cheikh Ibrahima Sarr sëñ Tuubaa jox ko ndigal ba mag ngay dugg di gas Cheikh Mor Thioune toog fa mu toog ne ku toog kuy dugg na nga dugg man bu mu duggee bala maa génne bala maa génn naa génne ndox ndox ma ci génn ci ay noo xamante gi Cheikh Ibrahima ci Cheikh mu jël ko jox ko Cheikh Ibrahima Sarr mu yóbbul ko ci Serigne Touba mu ne ko sa waa jàpp ne ma ne ko Mor Thioune Mouride Sadiq loolu nag yombul asadiq boo nee yonente sallallahu alayhi wa sallam la cay teg mooy Abu Bakr Sadiq boo nee Serigne Touba la nga cay teg mooy Murid Sadiq kon loolu buñ ko amee war noo sant yàlla bu baax waaye nag li sëñ Habib wax léegi nee mbir lum rëy rëy rëy saa maama jëf saa maama def waaye loo def yow ak loo wax ba pare jara bàyyi xel saa maamay diw la doon diw sa maama jëf nangam rek nga bëgg taxaw ci loolu taasu ca barke ba loolu day indi tardement lay indi nit ki day sabablu fan mag ñi tegoon seen tànk yëpp fàtte seen tànk loolu nag alhamdulilah rabbil alamin bi ñu gisee mag ñi ànd ak ñun ci loolu teg seen tànk ci jéggiwuñ ko ñoo moon ñoonu tànk euh, tànkatal ci loolu ban ban toq ci ba nga xam ne tey amuñu lu ñuy def loolu kon alhamdulilah rabbil alamin kon nag kàddu yi moom cant la ak ngërëm ak sant waa dëkk bi nag ndax bi mbir mi amee ba léegi ñaari at ngeen ni amul waaye ñu yàkkamti ko woon lool lii moom dana dañuy génn rek waxtaan nit ñi mën a waxtaan ndax temps bi dafa xat waaye bu ndogoo ba noppi xaadim gay day day jàng ba minuit wala une heure de matin ndax bu bis bi kin ko tuddee ak ki ko moom mbiram nekkul ci tàkkusaan donc dafa yaatu muy maam bàyyi seen ci